jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ñu am mbégte nag euh, dellu seeg yéen ci seen ñaareelu xaaju émission bi di wareef ba tey ci télévision Futurs Médias ba tey nag ñu nekk ci problème mu immolation yi immolation yi soo ko déggee thème bi euh, mooy ñii nga xamante ne ñu ngi xaru di taal seen bopp nee naa la benn xaru xaru moom kenn dagalatoon kenn amul fu mu dagane amul fu mu dagane ci sama xam-xam bu gàtt bokk waaw kon nag su fekkente ne toog nañu ba mu mel ni lu xew la ci réew mi ba mu mel ni xale yi dañ ko def modd ba mu mel ni euh, fa tabakalla macha allah daal euh, euh, foo dégg rek ñu naan soo leen ma joxul nàngam damay taal sama bopp soo ma joxul nàngam mu mu xaru mu mu nekk lu yéeme loo xamante ne ne ñun balaa ñu ko doon xalaat di ci wax sax yéen ñi ñuy seetaan ku ci ne interpellé nañu ne wax leen ci kaawu émolation yi xaru bu dul jeex ji nag nee naa la euh, daal mbir mi toll na fenn foo xamante ne war nañu am responsabilité ku ci nekk ne lii euh, euh, foog foog ma wax ci foog ma jëf ci parce que xam nga li gën a bon ci Sénégal alaaji mooy sama yoon nekku ci sama yoon nekku ci dund ma ko man de yar naa samay doom fekk ne il faut ñu xam ne xale yi individuellement foo mën a nekk doomu kenn sa doom la doomu réew mi donc comme jeunesse bii moom mooy suñu espoir moo war a nekk magu ëllëg il faut que ñu xool ban qualité jeunesse lañu euh, la ñu soxla te qualité jeunesse bi ñu soxla du jeunesse bu faible boo xamante ne lu jug yëngal ko lu jug ébranlé ko xale si euh, xale euh, jeunesse boo xamante ne ne que jeunesse bu faible buy découragé boo xam ne ëllëg ak sibri daal dëgg dëgg dëgg àllaa ji daal fu ñuy jëm neexuñu ñu. waaye nag dégg nañ arrière tuuti. waaw dellu gannaaw. ci couscous bii. couscous brio. man day naa ko. joxoon nañ la sax waaye mais dama boole lépp toggalu ko. waaye dégg bala ngaa mën a coucher bu baax nelaw daal lekkal couscous bii. couscous brio. brio da ngay nag. dëgg daal boo ko lekkee jëru ngay dem ci salon. suñu sponsor euh, couscous brio ak best ak ñeneen maa la ko wax. waaye brio bi daal couscous de qualité. dama la ni dama la ni ngay biree. di nga mën a coucher bu baax mën a nelaw. Ah. man de sax na si defaral na ma ci. kon couscous brio la tubaarkalla. rek la. amu fi. macha allah te ni muy def yaram na duma la ko wax. macha allah. foog si di nelaw dina ko yee. macha allah moom couscous. couscous jërëjëf. te sa bopp dootu mi di waxuma ndigg. jërëjëf moom couscous. foofu dutoo nag mën ngaa daw ba ngaay. couscous marocain la. couscous daal laa la wax ni mm. nan dellu ginnaaw man mi ko ñam barki biig daal. Mm, mm. ku ko tardé. tey borom kër. boo nelawul ci yow ah, <laughs> waaye nañ dem ci kii bi ba ci fee bi man xaw moo ne lii yëpp def nga ko fi. waaw def naa ko <laughs> te damay bañ koo fàtte. ëpp naa fàtte. xam nga diggéen suñu sponsor yi ëpp naa fàtte. baar mm. xam nga soxna diggéen dama la ni. Mm. Euh, xale. Mm. bu jëkk. daa amoon. waaye parent amoon. léegi xaar amatul parent amatul. kon xam ne famille ko. déedéet famille tas. éclat famille mbooloo la. dëgg la daw ñu gëj a gis daw ñu gëj a toog daw ñu gëj a waxtaan famille. dëgg la léegi amatul. dëgg la laaj. dañ daan tëjum néeg di déeyoo. la génn ci att bi. dëgg la xale yi wër la. dëgg la nga génn ci pénc mi. dëgg la wax ak mag ñi. dëgg soo ko génn nag àddina bi wër la. xale yi dëgër bu baax balaa ñu. moo daan am bu njëkk. kon xanaa xale yi base bi léegi moo dëgëratul. base dafa amatul. Ah. moo tax naa yomb leen. dëgg la. mag ñi dañaan baas balaa naaj a ñëw. dëgg mooy daas. fanaanu ndax ren di day bett la mag ñi daan def dëgg la allaaj madame Diakhaté danoo waxtaan bëgg yëm rek ci téléphone madame Diakhaté maa ngi ko nuyu bu baax tubaarkàlla mu ne ma jigéen ju fi dàq looy witi mm. bàyyi sa njaboot mm. gisuma lu ko fi jar ndax njaboot ay alal dëgg la njaboot mooy alal mooy alal nañu investir ci njaboot gi. te réew mu ko neex dem. waaye du fàtte doomam. wax dëgg dëgg la investir sa temps soxna Ndieguene fii ñu toll nit ñi dañoo tollu njaboot gi. dëgg la alaaji njaboot gi yàlla li ndimbali rek. dëgg la walaay léegi ma sax waaye leen mën na leen a. kon damay bëgg tuuti la mag nga daan def ci xale yi. dëgg la. xale yi war a mën a dëgër. dëgg la. ba bu ëllëgee ndax gis nga euh, jom. Mm. du me soo mooy nàmp. dëgg la déedéet. dëgg la mooy kàddu yi dugal si biir bopp muy rentré ba way ci biir. dëgg la ba bu ëllëgee mu doon loo xëy soo génnee mën nga cee mën a continuer sa dund mën a rafet. dëgg la Alaaji loolu moo bëreetul. dëgg la xale yi amatuñ ku ñu leen digal. dëgg la amatuñ ku ñu waxtaanal. dëgg la wéet nañu. dëgg la jaaxale nañu. dëgg la ànd ak xale boo xam ne bii rek la man mënu ko. mënoo mm. ko yow. Mm. te ngeen toll képp am lu mu bëgg te di ko jëf te la nga bëgg mënoo koo jëf te doo gis ndey doo gis bàyyi mm. loo dugg lu ne doo gis nijaay kon jeex na doo gis maam doo gis bàjjan neexul gis kenn alaaji na parents yi delluwaat ginnaaw di defal xale yi di waxtaan ak ñoom dëgg la ndax jàng neex na lool waaye fekk ko nag moo dàq dëgg la njàmbat loo fekk dindi loo defoon dëgg la xam nga alaaji soo gisee généralement ci société occidentale yi euh, dafa am ay li tax ay affaire ay psychologue assistante social psychiatre yooyu yëpp bëri fa parce que li xew fii lii nga xam ne moo feeñ fii moom moo fa feeñ bu yàgg moo tax il faut aussi euh, nit ñi euh, di am euh, réflexe su di seeti ñu ñu mel noonu parce que balaa ñuy dem ci yenn cas extrême yi dëgg la diine bi allah ji dafa nekk palliatif diine bi sax dafa allah ji gis nga zikr xeetu stress boo xalaat zikr laa daf koy dindi kon su fekkente ne ne que boobu dem nga ba xalaat ne tën la ca ca nga war a ne ndax soo ca nekkee ba mànd ci yëpp du la yëngal waaye euh, euh, loolu yëpp euh, alaaji société bi nii muy développé woo nga xamante ne ni nga ko waxee noonu la papa absenté na yaay absenté du bàjjan du maam du kenn kenn koo xamante ne ne que war nga mën a wax ak moom am sa problème maa ngi la doon di yox benn bés benn kaawu benn kenn koo xam ne ci waa kër docteur yi la koo xam ne daf ma seet si woon fekk ma nekk rajo ma recevoir ba sonn wax naa la ko ay boobu ay 23h fekk temps yooyu damay recevoir confidence yi 23h ma sonn ne ñi ci des nañ dem ba beneen mardi ba xaw ma beneen mercredi ba ndaw si ne ma sooy dem may xaw ne ma 6h ba léegi maa ngi toog ma ne ko mais man d'accord na amee man 4h ba léegi maa ngi toog di recevoir confidence yi dama sonn da ngay dem mu ne da ngay génn fii sooy génn may xaw ma xool ndaw si allah ji xool ko ëppalewu ma ko dara ah manqué wul dara ma toog xool ko ba seppali ko xëccaat ko tëjaat sama bureau mais keroog jooju ndekete ku ko déglu la soxla woon. nit dina toll fenn foo xam ne ci degré problème difficulté familiale difficulté sociale difficulté professionnelle yoo xamante ne dafay soxla ku ko déglu yow su fekkente ne nekk amuloo ko la déglu ngay daw di wut ko la déglu ji kooku talu la mais allah ji lu lu lu ne ngay dégg te dëkk bi fu mu nekk nii foofu la toll léeg-léeg nag ngay dégg kenn koo xam ne. affaire bi dund ko wala ay njabootum dunduñu ko ñu naan waa eh ñoom soxna Ndege lii muy wax nii est-ce que Sénégal la xewee waa El Hadj Ndiaye loolu lii muy wax ndax Sénégal la xewee Sénégal la xewee Sénégal la xewee kon léegi il faut ñu delluwaat gannaaw jël ci ñoom maam ndax alaaji démb tax ñu naan tey ñu delluwaat uufaat xale yi nañu dellu yërëmaat xale yi nañ dellu waxaat ak xale yi xale yi tamit delluwaat amaat kilifa ay repère xam ne xaddi ba di fi xewu jaru ko fi xaddi ba di fa taal sa bopp jaru ko fi lii daal allah ji daal nee naa luñ ci wax wax wax wax du doy ndax réew mi yëpp la interpellé waaye nag bëggoon naa allah ji nga wax ma lan moo ci responsabilité état bi ndax xale ñu ne état bi am na ci responsabilité. waaw xam nga état bi soxna Dégane jeexal na wax. Mm. étudiants yi ñu ne état yi dama ne état dafa war a nekk société ak cotiser. Mm. société nag. ki bëggul bénéfice ma ngay yàq. dëgg yi li ñuy jànkonteel ba metti leen. Hmm. état am na ci cër. ndax nag kenn ku ci ne boo ko seetloo ci état bi. Hmm. bari ci bëri te hmm. am ndomb ak tànk ñi seen doom xaruwul. ñekk ñu kaye. jàngiwuñ ci réew mi. mun waxtaanee nag ci dëgg rek nag. ñi nga xam ne dañoo nekk tey di nekk état bi. université di xale ya fa nekk. baadu kon nga ñu baadu mooy siin cër yi. waaw. xale ya fa nekk tey loolu la ñu wax de. waaw xale di étudiant tey. Ah. état bi war na leen mën am ci côté bu ñu leen jàpp boo xam ne bii bu leen parents yi bàndoon ne sax ñoom parents lañu. waaw ah. ndax état bi nag mooy parents ñëpp. waaye état bi nag xale yi ñu ne. de mëtatul parents xale yi ñu ne sonn nañu. sonn tax ñu def li ñuy def. dama bëgg toujours ñaari état yi nañ def li leen war. Mm. su ko defee ñoom ñu wàcc. xale bu mm. deful la la war nag ba taal sa bopp nga perte. Mm. waaye état wàcc na. dëgg la. gis nga soxna diggan turu émission bi. wareef wareef moo hmm. watul ñu bari mbaa ñi mu war jëppatuñ ko dëgg la laaj ne état def wàllam dëgg la xale bu ci jaar bu ëllëgee yàlla mën laa defal jàmm boo ci jaaru ba liggéey loo gis sa bopp la dëgg la waaye état wàcc na dëgg la laaj étudiant nag dañ ko war a jàppale dëgg la sayir ak baatin dëgg la na ko ay waajurum jàppale bu ñu ko mënta jàppale nañ ko di yedd dëgg la ndax du ñoo gën a koo jox wërsëg rek jàppale ñu ko déedéet dëgg la waajur bu noolam néewee tam amul njaboot état bi dafa war a xale yi c'est très normal état ñëpp la war a yërëm. voilà rawatina étudiant ñëpp la war a yërëm rawatina nag étudiant. dëgg la étudiant yett dal na ko. dëgg la moom Modou Modou bu tukkeyam. waaw allahu yax la mu guddi la xamul fu mu yàbb ci. dëgg la allah ji dëgg la. dëgg la étudiants yi bari nañu étudiant université. allah ji xoolal saal boo xamante ne ñu ne ñoom saal bi 1000 euh, nit moo fa war a nekk ñoom ñu ne ñu ne saal bi 4000 nit moo fay nekk. waaw xam nga yooyu yëpp sax. nekkin moom mën naa rafet. jàng waaw lu mu wooloo bari bari. da nga amul sax foo toog pour jàng. waaw lu yéeme la daal nañu restructuré waat defaraat. alaaji dama leen daal xaalis ñuy wax ñu dugal ko dëgg ci xale yi. waaw dama leen daal ku bëgg daal ku la doonu ëllëg te dooñu war rafet. Mm. di nga ko jàppale na jàpp lu bëgg a ërbe pour mën a yor réew mi. dëgg la. waaye parent yi am na si ñoo xam ne ñii. Mm. mënuñoo jënd kaye waxuma biig. dëgg la. kon mënuñoo dimbali seen doom bu nekk université. dëgg la. waaye ginnaaw dañuy boo liggéey réew mi xale ya koy yor. Mm. parents yi am nañ ci cër wàcc nañu waaye état bi nga xam ne su ëllëgee aaye la ak fégal nañ fexe xale yi bu ñu aayee mën a yor réew mi te dara du ci am waaw parce que parce que soxla nañu ay xale yu wér xale qualité xale yoo xam ne borom xol yu rafet xel yu rafet yoo xam ne ñoo war a mais xale yi nii ñu découragé nii xale yi action yi ñuy def allah ji ndax mën nañ am yaakaar ni ëllëg si bi réew mi dina nekk ci loxo yu wóor waaw xale yi dañoo xamatul ñu jëm ba pare amatuñu yaakaar am yaakaar yaakaar mooy tax taal sa bopp dëgg la yàkkamti nañu suñu yaakaar tas na ba lu ñu am jël te nag dama toujours nii la soxna déggéen daal eh, état bi daal am na cër yoo xay bis bu ko séddale woon ci étudiants yi taal sa bopp dina fi xaw a gëj dañu leen dimbali as lëf tubbal gi seen xel man naa daal jërëjëf nañ ci dugal seen wàll bu baax jërëjëf Alaaji parents yi ndee waxtaan ak xale yi ndax étudiant bu ñëw fii ci université. Mm. balaa gis parent di at. Mm. mbaa du ko teg bët. Mm. du téléphone. du lu sol ci moom. wëlbatiwaat li mu bëgg ci état bi mënu ko am teg ci. neexul. état bi nag. ku fi ne rek. mooy sa waajur. li war bu ma amee nag laa wax. njàng mi nag neexut a wax naa ko Ibrahima Sall. tubaarkàlla. murid saadix. dama toog ci bureau mbër ki démb rek. mooy directeur u Sikaab. Mm-hmm. mu ni ma tontoo man am mu ni ma njàng mi mm. ful la yoru ko mm. man ko lu ko yor mu ni ma laabir ak maslaa wax na dëgg dëgg la wax na dëgg dëgg la xale bu énervé mm. dafa teel a da da nga koo teel a jekku nit saa bu énervé moytu ko mën naa def giraay waale bu génnee di ci réccu la mooy xale yi. dëgg la boo demee université ba gis bu ñuy génn. am na ñoo xëy nekkuñu fa. dëgg la seen dara sax am na ñoo xëy fu xamuñ fuñ jëm. seen am na ñoo xëy boo leen ne étudiant bu njëkk. bu ne tëll nga ni directeur la. dëgg la étudiant bu njëkk nag laa wax dëgg la laaj. étudiant yi. Hmm. étudiant la nga gis koo xam ne ci da nga ko yërëm. Hmm. la mu sol rek da nga ko yërëm bu hmm. génn université. waxuma nag kaye ya mu yor waxuma famille fan waxuma la muy lekk parent nag def na waru garam mm. yàlla ay joxe mm. bëgg nga sa doom jàng matale mm. woo ko yoroo ko ki nga xam ne kii danga ko moo ñëw na ci réew mi nañ leen jàppale ba bu ëllëgi xale yi mën a arrivé xam nga alaaji li nga wax sax nee naa la diggante CP euh, astaghfirullah CI ah fi xale bi di dugg Sénégal njàngum Sénégal parcours de combattant la gis nga xale bu dem ba am ci bac alaaji jaar na ci ay tolof tolof yoo xamante ne balaa muy dem ba am bac ndax njàng bi dafa metti waxuma la nag ñii nga xamante ne ne ay borom baax lañu jël seeni doom dugal leen ci ay structure privée ba xëy suba université sax amaana duñ fi toog wala boog université privée ñooñu waxaale wu ma leen waaye xale bi nga xamante ne allah ji comme ni ñuy waxee ne doon nga ñu baadoolu mooy suuf mooy sin cere buur xale yi koo xamante ne ne que sa wuy euh, sa parent euh, te dooleem bëriwul noonu diggante ba nga koy dugal CI allah ji laa la wax ba ba muy am entrée en sixième rek parcours combattant la xale bu jóge ci ne déedéet foog ma tekki foog ma tekki foog ma tekki di xuus di xuus di xuus alaaji ba am ba am bakk xale boobu dëgg dëgg dëgg war nañ ko mën a jàppale te ba pare daf ci am ay xale yoo xam ne non seulement def nañu lañu ñu war a defee ba am bakk toog bakk muy responsabilité wu état bi ñu ñu ñu ñu ñu ñu canaliser leen euh, nu mu tuddati euh, yóbbu leen ci université mu am ay xale yoo xam ne dañu am bakk xëy suba di dugg di wàcc ñu ne la yow kenn ut amuloo place kenn tegu la fenn nga toog di toltolaat su fekkente ne sa parent amul moyen doo doo doo continuer sa jàng ñeneen ñi dugg université suñ duggee université man ci li ma dégg ci xale yi sax am na ay système yoo xamante ne ñoom xale yi ñoo ko wax de ñu ne ñoom comprendre ñu ko dañu xalaat ni ña leen ko teg sax comprendre ñu ko ànd ak lu ci mën a ne daal ginnaaw fu mu ne ni jur na naqar ba xale yi di ci xalaat a seen bopp nañu toog waxtaan waxtaan wu yaatu ndëpp man nee naa Alaaji dama faa Sëriñ Mor Mbay ma ndax professeur dafa doon teel a wax ni ne Sénégal na nañu ndëpp waxtaan ndëpp ci façon bu ne ndëpp ci viol yi ndëpp ci classe yi ndëpp ci école yi ndëpp ci lëpp parce que lii dafa am lenn loo xamante ne ku ci ne su xëccee nga toog professeur xëcc ne duñ ko def xale yi toog ne duñ ko def fa muy fa muy jëm duñu neex ñun ñëpp te dëgg-dëgg ay série taal dañoo bëgg mu dakk bëggatuñu nit jënd almet bëggatuñu nit jënd essence bëggatuñu nit taal boppam bëggatuñu ko suicide wu ndax dëgg dëgg dëgg dëgg ji jamono ji metti na waaye dëgg yàkkamtee dee ba ne da ngay xoos di taal sa bopp alaaji yéeme na. xam nga sa dégg Sénégal toll foo xam fi ñu toll su ma ñi dekkoon bu ñu ko waxoon duñ ko gëm. ah waaw kay. mukk ci àddina li xew. waaw kay li ñuy wax. waaw li ngay jégg waaw li ñu fiy jëf. waa su ma ñu jógoon bu ñu waxee kenn du waa waaw waaw ndegam ñuy dund gëmuñu ko. ndax Sénégal bu njëkk ak. am na naan li li ndax Sénégal la. bu njëkk laa la wax ni la ak Sénégal léegi danga naa tey du Sénégal. dëgg la. waxatuma sax jikko. dëgg la. waaye yàlla ci boppam la ñu gëmatul. dëgg la laaj wax nag rek bala maa dee ñu wax naa jullit julli taxut a doonu jullit. dëgg la. yërmaande bëreetu fi amatu fi. dëgg la ak dimbalante ak uuf ndax njaboot genn la. dëgg la bu jëkk benn doom bu tumuranke amul. dëgg la dangay ngay génn ci mbedd mi ki maase sa baay doon sa baay. Hmm. boo defee lu yoon mu jëflanteeg yow. Hmm. na sa baay daan jëflanteeg yow ba nga xam ko. dëgg la yooyu yëpp amatul. dëgg la laaj bopp sa bopp nag heure lay juddu. Hmm. moo tax Sénégal dama wax toujours la. dem màkk yi bari na ak jàkk yi. waaye na ma yàlla jéggal am na foo du mujj fenn. yàlla ne ku mu jëppi la teg la teg teg la coona. ku mu jëppi. teg la coona. réew yi mën nañoo delluwaat ginnaaw. mag ñi nag moom ak kilifa yi ñu fi bàyyi ñu ngi ci leen war. mais alaaji lan mooy tax réew de wàccetu fa. xanaa def lu yàlla bañ. ñeema lu yàlla bañ. Mm. bind doomu aadama mu gënal ko ci lépp. Mm. soppantewuñu bëggantewuñu. xol yi xol yi. alaaji xol yi. te naa la leen tolof tolof yëpp xol yi la. mooy loolu. alaay alaaji. ba pare nanguwuñu dogalub yàlla. wallaay wallaay alaaji réew mi nanguwuñu dogalub yàlla. wallaay alaaji. soxla leen kenn ku ci lal yàlla teg nangu ko. dëgg la. bu dee sa nawle nangu ko. dëgg la laaj sang sii fi nekk nag. Mm. mu sëriñ su baax sii fi nekk tey. Mm. Mm. képp koo xam ne kii la ngay wax doon dëgg ci moom bëgg leen a fooy yaa ci heure sa mbir du jag ba àddina tukki. ndax bu Sénégal jagee ginnaaw saa borom mag ñi fi tëdd la. waa voilà ñii di taal seen bopp du ay jinne du ay jinne leen di dugg. jën benn jinne dugg leen. ah yéeme na de. benn jinne dugg leen toog rek dara dugg leen. Eh, eh, dégg man dama xalaat jinne may mën a la sax eh, dégg ab sëy sax bu toog bëriwul. Mm. waxtaan bëriwul. Mm. heure dugg. Mm. waxuma xale bu wéet. dëgg la te amul ko wéttili. wéet wéet. wéet amul ko wéttili. beru beru. waaw war ngaa toog ba léeg-léeg sax ngay waxtaan ak sa soxna. dëgg la wëlbati ko waat xam ne ne si xelam mu xam nekk sam xel. dëgg la léegi xale yi dañoo wéet. wéet moo jigul kenn. dëgg la xale yi wéet nañu àllaaji. waaw amul kenn ku leen waxal. xale yi balaa ngay xam ne àllaaji wéet nañu sax nga jege leen approché leen tuuti. ah waaw léeg-léeg dañ ciy gis kenn koo xamante ne su la gisee xoolal àllaaji kii kii lakk ba tëdd gis nga yii la ñu indi Sénégal alaaji dañ ci gis xale boo xamante ne da lay gis yàkkamti waxtaan ak yow danga man li may dal da gis xale boo xam ne daf lay gis soo dégg may mu tudd dafa am leen loo xam ne dama la bëggoon wax loo xam ne mënu ma ko wax ku dul yow mais alaaji xoola fa nga jóge sa yaay meññ sa baay meññ la nga toog ami ay sœur ami ay frère ami ay bàjjan ami ay cousin nga wéet ba di wër ku mel ni soxna loolu ku wér pour nga wax ko sa problème kon dëkk bi am na wéet wéet gu fi ne alaaji wéet googu nag man dama ni euh, il faut ñu dellu si ci ay valeur u démb mm-hmm. alaaji il faut ñu dellu si ci ay valeur u ah. ndax fii ñu jëm lii fu mu ne nii alaaji moo sànq société yi nga xamante ne ne que ñun yu bëri ñu dem ba nga xamante ne ku ci ne bopp sa bopp wéet gis nga alaaji da ngay dem ci dëkk bi bokk nit ndey ak bàyyi sax yor sa problème xoolal di ko dàqe ak pour wax ko ko saa yu ñëwee mu xam ne problème lan la waa alors yaa ngi añ yaa ngi rek man aw ma jot ah. bon bàyyi fii je vais t'appeler aw ma jot defaraat cravate am ne may leen ko mu añ aw ma jot a ah. eh, bu mu yéegaa bàyyi ko ci suuf. Ah, mu noonu nag mooy ma la rek. yii ngay gis di ko dund di ko dund mm-hmm. nga dajale ko mujj gi yow da ngay dem ba nga xam ne sa kër benn mbokk dootoo fa demati parce que saa yoo fa demee nañ lay accueillir ci koo bokkal men bokk gañu da ngay naan lii dara jaratu ko ngay wëy nii ngay wëy nii sa yaay soo ñëwee toog yow dimbali ñu njàng mu dul jeex ndimbali ñu njàng mu dul jeex njàng mu ne parce que tout simplement joxoo ko sa papa moom absenté na bu yàgg ma nga toog ca kër ga nga xamante ne foofu lañ koy ganaare rek foofu lañ koy suppee xale yi juddu ak ay frustration màgg ak ay frustration màgg ak ay rancœur ñu dem xooslu ba dem université ut fa nekk état bi te tegati leen ay yeneen frustration yoo xamante ne alaaji du ñu lekk wala boog seen njàng ba doxul te amuñu ku ñu waxal ñu xëy suba pete parce ku taal sa bopp alaaji da nga toll fenn foo xam ne nekkatoo fa da nga pété les plombs. waaw xam nga xam nga ni ay bu tàggoo xam nga pété les plombs bu baax ndax ku tàggoo sam xel rek dootoo nit. waaw kay kon pété les plombs kon xam nga lan la. saa boo tàggoo sam xel dootoo nit. Hmm. Ah, xam nga diggante dafa am yoo xam ne taal sa bopp ñett lay indi. Hmm. ne dikk ci diggante ñaari waajur yi. Hmm. taal sa bopp donc bu demee ba a nekk ak waajuram. waaw mën nay ak bàyyi. ndax la muy dégg ak la muy dund ak la muy gis mënatu ko entrer ci boppam. Hmm. dina jaar moom àddina mu fat ko benn yoon. ba ba léegi lu bari dootu ko ti arbité. ndax dara neexu ko ci dara neexu ci. lépp te waajur yi di def doucement bu baax. Hmm. Hmm. soxna dégg ànd neex na lool. waaye jëppante ci gën a yées. ma nag doom joo xam ne ba léegi dina màgg mbaa ma xam am na loo xam bu leen ko dee arbité bu yàggee ba yàgg te mënu koo faj na ma koy fajee rek mooy jental ba dootu fi nekk dootu ko gis gàddaay gàddaay dem mooy jental rek mooy jental mm. dootu fi nekk mm. ne te euh, waajur yi def attention mm. soxna loo mën a séq moom na ko sa doomu ump bu dee ba xam ni nag dee ndaw yu bari mooy tax xal yi ñaare doon góomu xol bu ñu mun te faj nañ koy fajee nag du rafet ndax doon alcool tu doon piqûre teg ci rey seen bopp rek fay sës xam nga doguma la yàlla bu la dara dog damay dellu si léegi ci kilifa goog nga xam ne yoroon mbiru ñàng mi nga doon wax ne moom nga doon waxtaanal mu lay naan doole yorul ñàng bi nee na ñàng bi maslaa la ak yaru ak yërëm xam nga àllaaji na kilifa yi tamit dellu di yërëm askan bi <laughs> nga réew mi nga xam ne moo gën a metti ci kaw àddina lu ci ëpp ci ñàkk yërëm ak ñàkk masla allah ji dama la fi waxoon ca gannaaw yaa ngi ko wax boobu depuis maa ngi rajo dunya di wax ne lu raay mayewul xasi du ko maye allah ji xanaa xamuloo sa doom sax dangay ngay maslaak moom di ko raay ak di ko raay mbelle pour am ci moom li nga bëgg léegi nag su fekkente ne nag yàlla dénk na la responsabilité bu day ne nga jiite étudiants yi wala boog jiite kuréel wala boog jiite état wala jiite éducation nationale looy def allah ji nañuy maslaa ak xale yi waaye taxaw rek du fi am du fi am du fi am ñiy baatu ñagas yoo xamante ne nekk alaaji dina dog xotti lu bëri yàq lu bëri loolu tamit dañ koy seet dañ koy ñaan kilifa yi di ko ñaan kilifa yi nga xam ne ci kër yi di ko ñaan kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci gouvernement bi di ko ñaan kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ay recteur ak université ak fu ñu mën a nekk alaaji nañuy yërëm xale yi di maslaa ak xale yi alaaji moo gën daal xëccoo bi du am du am du am du am ndax dëgg-dëgg lu raay maye wu xusi du ko mayee te alaaji am na ñenn ñoo xam ne dañoo judd rek nekk diplomate dañuy waxtaan ba am li ñu bëgg waaye yow réew ci fitna yow réew ci xëccoo alaaji loolu dëgg dëgg dëgg dina jur fitna yi te soxlawuñu ko ci suñu senegal waaw xam nga xam nga kilifa yombul nag. Mm. bari na ku jox place waaye doo kilifa matoo ko. dëgg la alaaji. kilifa yombul dëgg la. dangeen baat la rek. yombul de. ba ku ne di ko wër. dëgg la. waaye bari nañu bu ñu ko soxlawee doon mbubb. du mm. dem xew ndax fu mu jaat tilim. dëgg la yombul dañuy wax rek waaye kilifa yombul dëgg la alaaji. kilifa day seen diggam ak boroomam. Mm. ak li ko yàlla may ak ñi ma ko xañ. dëgg la ak li ko yàlla sant mu di ko def ci biir poids bi mu yor. dëgg la. faaw yërmaande dugg ak dimbalante. Mm. Mm. ak yedd ak teey. Mm. loolu bëreetul amatul. dëgg la laaj. doole nag ñaari saa boo ko dee jaay. te doon kilifa. kañ ko jaay soo mu doole mën nga ko. moo fi bari. ndax étudiant xale la. tournée yi. ak diplôme yi. waaye gone lañu. dëgg la. boo xëccoog ñoom yaa ngi leen di lor. ay xale lañu. xale lañu xamuñu dara ay xale lañu ay xale lañu àllaaji boo xëccoo ñoom yaa ngi leen di lor. dëgg la noo leen di lore. Mm. mooy sa baat ëpp seen baat te sa jëf xajul ci ñoom. dëgg la Allah ci ñoom bu ñu jëfee lor seen bopp. dëgg la mooy lii. dëgg te doo leen topp. te doo leen topp. waaw dëgg la Allah ba ñu bëggee topp nag àddina tukki. dëgg la nañu parents yi nañu mm. góorgóorluwaat. Mm. di waxtaan a xale yi di leen nàmpatal kilifa yi ak kilifa yi nag góorgóor tam bëpp nag te am laabir gu day nag ni mm, mm. nit ñi def seen doom ndax nag olof njaay nee dof boo gis kër la jóge doom màgg mm-hmm. jariñ ñépp mm-hmm. te mosoo koo nàmpal xamoo foo xaram dëkk mm-hmm. waaye da ko daan séddi teraanga mm. ak terle ngir ëllëg su màggee dëgg la laaj kon dafa am yoo xam ne toujours ñaare na ko kilifa yi di bàyyi xel dëgg la laaj te xam ne kilifa nag yàlla koy jiital dëgg la laaj su matee day sàmm dëgg la ak jur nag loo mu bari bari bari bari mm. ka des ginnaaw di sàmm mm. am na ci jur goo xam ne gi bu ko toppee moroom dëgg la allah ci waaye dañu bokk jikko ndeysaan waaye baatu kilifa rëy te yàlla na ku mu samp ni la yaa jiite mm. na nga jiite na ko mat sëkk waaye yamaleel da say bagaan fees dell ngir bu ëllëgee ku la sukki ba léegi du la sikk dëgg la allah te nag kaay ni waxtaan nag léeg-léeg nga fooyee étudiant def ko du lu yoon te boo ëllëgee mooy toog fale mooy fanaan pale dëgg la ñu jàngal Macky Sall bu ñu ko defan tey lu naqare nga xam dëgg la soxna dëggan mm. nañ di delluwaat ginnaaw tey seeti cër yi dëgg cër yàllaa ko yor te léeg nga toroxal koo xam ne kii su ëllëgee lay jëriñ dëgg la allah ci te boo liggéey mën naa toog place boo xay bi mën naa def ci yow loo xay kenn du ko dindi dëgg la nañ di seddante te soppante te bëggante mm, te yërëmante te yërëm xale yi allah ji ci baatu yërmande boobu fa la ñuy taxaw ndax xam nga ni taal sa bopp ci lañ nekk di laajte lu tax xam nga ni ne recrudescence euh, euh, des immolations au Sénégal ci loolu lañ nekk mu nekk ay thèmes yu pénible ay thèmes yu yéeme waaye nag waxtaan ci suñu biir rek ndax suñu wareef ñun mooy lépp loo xamante ne lëmbee na réew mi rek ñu yëkkati ko indi ko jox leen ko ngeen wax ñu ci seen xalaat tey nag tey téléphone bi dafa am difficulté waaye sant yàlla la ñuy def nee naa nañuy sant rek sant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem alaaji kon nañ tàggu askan Kumba Nguy Thiam sama doom. sama commissaire. ñoo bokk yaay waaw yéen bokk waaye Adja ko jàmm bu baax a baax a baax. ak Njool Diop. tubaarkàlla sës ak moom. ndeysaan di siyaare baax nag. Anta Ñang moom El <laughs> Hadj Saliou Ndion. sama xarit sama jigéen. ak nag ajaratu a Fall jaañ ak ki nga xam ne kii nag mooy ñaañi Touré ak sama xarit di sama jigéen ak di ajaratu Awa Diop député. ndeysaan eh, di gërëm it bu baax nag. Eh, aji jaay na ñu koy ziar waaw góor a waay ñu koy nag bu baax a baax nag <laughs> ajaratu jaay na ba faal am yoo xam ne du fay mukk ci àddina ajaratu jaay na ba faal <laughs> eh, di ñaan nag it Ndeye Maguette Dieye député assemblée ak ki nga xam ne mooy Seynabou Wade moom Serigne Touba député waaye di gërëm bu baax a baax nag sëriñ Fallou Garas Mbacke maane ak soxna Awa Gaye soxna Asou sama xarit. sama mm. sëriñ. Mm. Eh, di ñaalu baax nag nee na yaay nekk ca Mbacke Bawol. tubaarkàlla eh, di madame Mbaye di sa njëkke. ajaratu daba si bi. waaye di gërëm nag Mouhamed ñas mu mm. Mbaye Ibrahima Niass sellew na ak Mouhamed Niass. Ngor Almadi. Mm. waaye fu ma jaar ñëw ci imam Cissé. Mm. sunu xarit. ndeysaan ndeysaan imam Cheikh Tidiane Cissé Cheikh Tidiane Cissé bu Medina Baye bu Medina Baye. ah kooku nag euh, mooy sëriñu soxna Fat Samb. docteur Fat Samb jërëjëf mi jaay diplôme yi jëndee taalibe. jërëjëf <laughs> euh, di gërëm nag it bu baax rek xalifa Fall. mu mm. sëñ Amdi Fall. waaye di gërëm sëriñ Fallou. loo hmm. moom sëñ abam sëñ fàllu sëñ abo sëñ fàllu Diop ñoom ñëpp waaye fi may tëjalee nag hmm. diggan hmm. mooy suñ doom Aminata Tall ndeysaan bu Zurich Zurich yàlla na ko yàlla defal jàmm ak Fatou Laye Kena Amadou Boubacar di ko ñaanal bu baax a baax ak sëriñ Mansour euh, Niass bu Almadi waaye di gërëm Imam Mohamed Omar Niass Omar Niass Imam Mohamed Omar Niass bu Ngor Almadi bu Ngor Almadi di gërëm nag it bu baax a baax Pape Mbeng moom Alaaji Mansour Mbeng Mbay te nekk fii ci Yoof waaye sama doom ji may tëye nag mooy wali mati juum mhm. sama xarit sama lépp yàlla na ko yàlla defal jàmm bu baax amiin amiin te gën koo teral bu baax a baax a baax yàlla yor lépp euh, sama xarit nag di sama sëriñ nag mooy uh-huh. arrêt duba lees uh-huh. nga xam ni mooy tubaarkàlla euh, sëriñ Baara Fall yal na léppam yokk yal na léppam yomb ndeysaan alaaji Lamine Niang bu jëdda sa xarit di suñ lépp ndeysaan noo ngi ko siyaare bu baax ndeysaan jërëjëf alaaji jërëjëf alaaji dañuy delluwaat nag ji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 ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam alaaji damay nuyu rek waa kër sëñ Mamoun Niass yëpp rahmatullahi mhm. alayhi rawatina xalifa soppe Mamoun yi fatabakallah macha allah ñu ngi koy sargal bu baax a baax alaaji di remercier bu baax a baax sama doom madame Sall Aïcha Thioy wax naa la ne moom moo ma habillé mention spéciale wax naa la ko mu nga ba euh, kii waa Italie ah écritalam sànq ba léegi mu ngi jaar ñu ngi koy sargal bu baax a baax mu ngi nii waa madame Sall Aïcha Thioy gis nga 0039 389 789 gis nga 622 mu ngi nii numéro baa ngi ne daal Venezia ñu ngi koy remercier bu baax a baax Alaaji di nuyu bu baax a baax aussi waa Dubaay xam nga ni fu mu nekk nii euh, taalibe Cheikh waa Kër Dabaax soxna ba Kebe mu nga ba Dubaay ñu ngi toog di ñu seetaan sànq la wax ni waa Dubaay ñu ngi ñuy seetaan ñu ngi leen di sargal bu baax a baax Alaaji di remercier tamit euh, waa salon Déguène Chimère ñu nekk ca Point E rue 1 ah euh, piscine olympique bi rek rue 1 ñoom ñoo ma coiffé alaaji xam nga rek maquillé defar ay we defar ay feem ay bagages bés bu ma koy ngénte alaaji dinaa xumb. ñu ma ko diggan nag <laughs> eh. dafa am ah, aji aram Dieye. Eh. Serigne Ngom diwaanu Mouride yi ne ko yoroon. Ah, ah, ndeysaan. yàlla na léppam yàgg ci loxo. amiin amiin yaa rabbal aalamiin. aram mm. tubaarkalla. Mm. demul dikkul waaye yër na njabootam. ndeysaan te bëgg lool nag wareef. ndeysaan ak aadi rakam waaye aram yal na ko yàlla defal jàmm. amiin amiin na ko yàlla teg bis boo ko indi ragal naa ni. Eh. dina pi loxo nag aj awa Dieye Euh, Dakar na boobu Palaay woo de. <laughs> madame ñu ngi nee na su boobaa nañ ko ko ndeyale. Ah. <laughs> kon kenn du ko wute. ndeysaan alaaji daal fa tubaarkalla macha allah di nuyu bu baax a baax maire ñoom mag yi ah ñoom Awa Ndar ca Njolofeen ah fa tubaarkalla maire Jalel ñoom ñëpp li duuf ci nag yëpp xajul ci cin li xam naa dama leen di jox rendez-vous suba ci kàttanu yàlla ci beneen émission wareef yàlla na suñu borom bi def dégg ak topp ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam yàlla bu kenn manqué yàlla bu kenn manqué la ci barke alxuraanal karim jërë ngeen merci maa ngi nuy waa ital yëpp jërëjëf yaayu Cheikh Ahmadou Bamba Fatima ak Mohamed ñu ngi koy nuyu bu baax a baax madame Sall Aïcha Thioy merci